réunion bi tey ñu ngi koy def sous la coordination la ministre la dina tàng parce que kuy doomu aadama ci biir réew mi bu fekkente ne ñun ñu nekk ci nguur nekk au pouvoir ànd ak xooluñ ne war nañoo xoqatal nit ñi exercer suñu pouvoir légitime ci kaw nit ñi nga xam ne chaque jour dañuy fóote waaye mu dem ba mel ni ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon ne ñoom ñoo war sax am lu ñuy tiit ñooñu tey ñoo dem ba yaakaar ne réew mi ci seen loxo lañ ko teg nañ waxante dëgg li am ci réew mi nañ ko xoolaat ñan ñoo nekk parce que dafa am loo xam ne moo commencé mooy ba ñuy installer assemblée nationale. dañuy naan lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro ba ñan ñoo fa nekk kii daa rey nit kii violé nit faf sax mujjul bokk ñeneen na ñett ci biir assemblée nag ndoon ay agresseur di rey nit ñi parce que nag Ami Njaay ñii bi suñu sœur madame le maire ku ne xam na jigéen bu wanu la man ci laa jóg yàggul dara ñu jël tànk weq la ci biir nañ waxante dëgg ay rey catholique ñoo nekk ci assemblée nationale bi Amy Ndiaye ñii bi yàllaa ko bëri nañ wax ak yi parce que ñoom ñoo leen fal ñoom ñoo leen jox seeni voix voté leen ba ñu dem assemblée nationale lu gën a rafet vote budget vote bi lu ko waral

looloo ku am sa sëriñ yedd ko ndem sëriñ moo war a yedd taalibe waaye sëriñ bu làng ci politique bi man damay wax wax ji sëriñ bu ma sañ a dugg ci waxu politique dañ lay wax waxu politique sëriñ bu dugg ñu wax la waxu politique nga bañ a dugg ci politique dañ ko tax dëgg pour lan man mii di wax ak yéen laa xam nit ku am kilifa la nit ku am borom këram la du jigéen buy taxawaalu politique ba mu jotee da koo def ci anam na mu gën a rafetee dëkk ci Saalum Awa mii xam na ko Awa mii xam na ko mu nekk jigéen bu jàmbaar mais ku ragalul lu muy wax la ragalu ko tey ragalu ko ëllëg waay ku ma fëgg ma fëgg la waay lu tax ku ma fëgg ma fëgg la bi njaay ñi bi mérito wu lu ñu gis lan moo ci topp après ay discours balaa ngaa génn assemblée bi ma toj waaye yow ëpp naa de kookaliira la kookaliira a ngi koy ree yéen a ngi koy ree yéen a ngi koy ree doo ko conclure en séeréer yéen a ngi koy ree waaye na ngeen xam ne jigéen bu wonnu lor loo ko def xamoo sax li ci nekk c'est très sensible yow góor nga jël sa doole jël sa tànk wekk ko ko kii mbéj ko ñu ne fu ñu ne ci démocratie lañu ne ñu ne ku ñuy défendre intérêt réew mi la ñuy ñuy défendre intérêt bi ñu ngi ànd ak président Macky Sall di liggéey ak moom ci jàmm ak salaam président Awa Guèye naa wax ci séeréer fogole séeréer te xew na tam saaxle fat wiin we eetin fat wiin we andin agresseur ndefu meen violeur ndefu meen wa andoona yee ga mbara wiin den ndefu meen so weene koy nu ɓisa den assemblée nationale da njang député den a mbi'a den ka andoona yee il faut nga indi maroon ku refer na quartier julit refo sénégal waaga mu lay ate refate men waxu refer na quartier julit refo kono kiino kiin jega tarixa na gimuna nda koy o refanga seri so moofa tante a xasa xu felonga laya xu felonga président Macky Sall ku felonga o leyno ten bona oxe andoona yee ten refu xalifa sax ku felonga o leyno ten so laye koy ko na politique nda o leŋ leyke faw politique kaga wagero oxu rokna no politique o leyni politique oxu bugeenna leyni politique koy o moof no mbinof tunga